am na loo xam ne dama koy wax di ko répété di ko répété waat loolu day wane ni wax ju la yitteel la day wane ni wax loo xam la pour damay wax rek pour Sénégal fan yi tàng na trop bëri ay coow bëri yu bëri yu ci nekk mais dama leen bëgg a jox exemple am ay activistes yu fi nekk nekk samay moroom yi wax kat comme man dàq ñu maa wax gënuñu maa xam li may wax dëkk bi ni mu tàngee nii eh, ñu ngi génnloo ay nit pour ay nit génn comme sa nit ñi génn ay kilifa yi war nañ génn mais bu ñuy wax ay kilifa moom ñu jéem a fexe ba ay kilifa yi ibaada bu leen ci boole. ndax bu fekkee ñooñu moom tegoo leen fenn ci dëkk bi amul kenn koo xam ne yaa ngi jàngale diine lislaam gu wér nga koy jàngale nga neex sénégalais ndax dëkk naa feq la senegal liñ gën a xam. mooy bokkaale yàlla lañ gën a xam Sénégal li nu gën a xam jël nit te ko ci kaw yàlla Sénégal xamuñu tawxiid du dëkk tawxiid dëkk la boo xam ne képp ku ku kii koo xam ni yaa ngi woote tawxiid di woote pas-pas bu wér li ñu doon def yëfaru màkka yi yëfaru màkka yi li ñu daan def jullit ñi ñu doon ànd ak Muhammad salaa salaam loolu laa lay def Sénégal dinañ la jiiñ taalkatu bomb dinañ la jiil fenkat dinañ la jiiñ lu nekk dinañ yàq sa der dinañ la wax lu nekk ba tax na yéen ñi nga xamante ni si alquran ak sunna ngeen di jàngale dëkk bi tàng na mais lépp loola ni wax ci dëkk bi bu leen foog ni mukk bu ngeen waxee ci dëkk bi da ngeen di jàppale dëkk bi ndax bu boobaa da ngeen indiwaat yeneen coow ba pare askan wi dañ leen di saraxe pour ngeen bàyyi ci xel wallaahi suma wallaahi kon si senegal ñii seen maam yi Serigne moo leen gënal senegal El Hadj Malick moo leen gënal Sénégal Baye Niass moo leen gënal Sénégal dañ koy wax tamit da ngay ñi di ko leen man sama Serigne moo ma gënal Sénégal. kon ñii ay jàmmi Sénégal ak ay mbirum Sénégal ak lépp seen sëriñ si ñoo leen gënal foofu Sénégal li tax may ñëw damay ñëw indi leen benn preuve ci yi nga xam mi nga am benn kii di maam Góor Njaay xaw ma bàyyi nañ ko ba léegi wala bàyyiwuñ ko maam Góor mu ndaw xaw ma ndax bàyyi nañ ko ba léegi wala bàyyiwuñ ko maam Góor Njaay li ko jàppee ay kërug jullit kër gu ñuy tuddee kërug jullit ñu doon ay nit yu bon muy waa kër maam li maam laay nan la ñuy tëjee nit ci xadisu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waa tuuba mel ni ñoom bokkuñ ci Muhammad salaa salaam nit ku wax xadiis yu yonent bi salaa salaam ne yonent salaa salaam nee na di ñu jàpp ci nit kaso yaakaar naa ne xalifa murid bu sëriñ Muntaxa Mbàkke waru ko woon seetaan tey bu doon lislaam yi teel na ko bu doon lislaamu Muhammad salaa salaam yi na ko mbay si maaso waru ko seetaan benn sëriñ waru seetaan tey lu mel nii tey ñu tëj nit ci waxal Muhammad salaa salaam bu ñu waxee ñu ne dañoo fonk rasulullahi salaa salaam sama maam yonent salaa salaam ko tuddee woon lu mu am Muhammad ko tuddee yonent salaa salaam tollu leen fenn du dëgg barke alxuraanu karim ndax bu leen tolloon fenn nit wax waxu yent sam ne lii waxu yent saraasam ñu tëj ko ndax Sénégal tëj nañ fi li ci waxu sëñ Touba ne te te léeg-léeg ñu wax tojaange yoo xam ne sëriñ bi moo bind yàlla kataballaahu yi sëñ Touba moo bind yàlla bind na téere boo xam ne ci jawaari man yi nee na moo sut kële moo ëpp daraja Mahamad saraasam kii bind na li ay yu bëree bëri ngeen jël teg ko di yàpp yàlla yàpp Mahamad saraasam sëriñ bi kawe na yenente ba kawe na kii loolu moo moo jara tëj nit te loolu kun ci tëjoon tey murit yëpp danañ jóg kun tëjoon tey ci ci ci ci ci ci ay waxi comme seen wax yooyu seen téere yooyu di ku nekk dana jóg mais ci wax Muhammad salaa salaam mu doon dëgg doon xadis ñu war a roy sunnata Muhammad salaa salaam loolu ngeen jàpp ci ay nit booy bi Muhammad Fall xale bu ndaw subhanallah ba tay mi ngi ci kaso bi ana ban activiste moo ko jooyal kan moo ko jooyal gars yi Sénégal ñii se am na ñoo xam ne Sénégal moo leen gën a ëppal solo ay diini am ñoo xam ne tariixa yi moo leen ëppal solo Sénégal ñaari façon yi ñoo seq Sénégal moo tax képp koo xam ne yaa ngi wax tawhid wallaahi na nga xam nooy waxee ci Sénégal ci comme te jàngale lan la xamee ca dan la xamee woon yow bul wàcce sa yoon muy jàngaleel yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñi ay jikko jàngal nit ñi lu baax nit ñi baax ndax ca loola lan la xamee loola mooy sa liggéey yow sa yoon sa yoon bu mu ci ay Macky Sall la mu mel ak quatrième mandat troisième mandat lii lii damay gis léeg-léeg subhanallah yoo xam sama xol du neex daal askan da leen askan bëgguñu leen liin gën a bañ mooy tawhid tawxiid leen gën a bañ Macky Sall askan wii seen pétrole seen zircon tubaab bi takk leen jàmm ak nga leen di woo ci bokkaale nga leen di woo ci ci ci tawxiid ñoom nga leen di woo ci ci ci ci lële sax moo leen gën a wallaahi ndax lii jaadu na xale doomu jàmbur ji ñu tëj ko ba léegi Mouhamad mi te waa ay nitu diine kan ñoo ko tëj de ñoo xam ne neen ay nitu diine la subhanallah booy Mouhamad la Mouhamad Fall xale bu ndaw ñu jàpp ko tëj ko dégguma kenn ku ko jooyal ci Sénégal du kenn kenn kenn bépp waxkat buy wax bépp waxkat buy xeex yàqu yàqu ak li am ci Sénégal duñ ko sax tudd duñ ko sax tudd wallaahi dama te si léegi laa xool ci Facebook bi ma xool ko ndeke booy bi génnagul man fàtte woon naa ko sax man mii ndax dañ koy nëbb ndax nit ñi soxalu leen ay jàpp nañ kii ci waxu Muhammad sallallahu alayhi wasallam jàpp nañ kii te amul lu gën a fort ci ñun diine ñun jullit amul lu gën a fort ñun al alquran ak sunna ya lii waxu yenent bi sa nee na sa gëm yàlla matul yow jullit matul matul matul fekk yàlla ak yenent bi saasam moo lay gënal lépp moo lay gënal sa ndey moo lay gënal sa baay moo lay gënal lépp boo fa tollu sa ngëm matut waxi Muhammad sallallahu alayhi dëkk bi nag seen ngëm nag matut ba tax na kon bépp ibaadu boo xam ne yaa ngi wax bu lay tëj moom mën nañ la tëj ci qaala laahu qaala rasul moom loolu moom jar na ko ba ba ba ba xalaw mais leneen loo dugg jàppal dangaa saraxe sa bopp war a biir kaaba dëkk bii dëkk bii du dëkk diini dëkk bii du dëkk diine ndax bu doon dëkk diine waa kër maam limaamu ñëpp jóg nañ dal leen ñëpp jóg nañ dal leen bal sax dañ leen di dëggal sax naan ay yenente la ngay gis yeneen kii sax ñi ay yenente bu dee yenente la kay lu tax toppoo ko yenente bu ñuul kukk yenente amul xam-xam amul dara naan kii yenente tey yenente bi salaa salaam lan la waxoon ci yenente nan lay mel lan lan la waxoon ci mahdi yu nan lay mel ne moom du ñëwaat ci ginnaaw ñuy indi nañ créé nañ fi mahdi yu créé nañ fi lépp nit ñëw wax waxu yent visage bi ci dëkk diine dëkk lislaam ñu jàpp ko ne ko ràpp ci kase bi amul kenn ku ko jooyal amul benn jullit bu toog wax ci seen seen seen ñàkk seen ñàkk bëgg yàllaa ko yentam dafa feeñ dafa leer naa ñi ñan ngeen yàpp ñàkk bëgg yàlla ñàkk bëgg yent visage ñàkk tënku ci alxuraan ak sunna bañ sunna bu wér dafa feeñ lii ay yéefar ñoo ko waroon def mais du ay jullit ñoo xam ne déggal ma naan ay ñoo xam ne dañuy woote woo jullit nan la nit di woote woo jullit ne ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nit taxaw wax la waxu saa sam nga tort ko peleen ko dafay gaarwaale samaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam li ko tax ñëw pour mu defar jikko wax dëgg moom sallallahu alayhi wasallam lépp loo xam ne nit wax na la ko mu jóg ci yonent jàpp ne la nga nekk moo baaxul nga soppi nga ñëw roy muhammad sallallahu alayhi wasallam mais royoo leen ay maam ngeen roy ay maam ngeen topp doomu jàmbur ji moo tax seen dëkk bi pour mu rek la dina jafe de fi fii fii metti mooy bari daal dangay ñëw xool fii ci côté politique bi boo demee baaxul boo demee ci benn côté bi baaxul nga ñëwaat ci peuple bi ci côté boo bokkaale yàlla ñàkk sa yàlla borom bi subhaanahu wa taala baaxul barke alxuraan baaxul bu leen yàlla mayee ngeen sant keneen ku dul yàlla xéewal bu ñëwee génnee Serigne Touba moo ko wéndi Alaaji Maalik moo ko indi mooy defar dëkk bi ñoom deewuñu ñoom ñooy yor xéewal bi ñoo yor wërsëg bi xarab yàlla te yàlla nee na bu ngeen ma santee ma dolli leen yàlla nee na buñ ko santee mu dolli ñu mais dañuy sant keneen ko dul yàlla yàlla defal la xéewal ñu kii suñu mag ñi binduñu asamaan binduñu suuf fii lañ ko fekk dee bàyyi ko fi dem yàlla bind asamaanam bind suufam ne jaamu leen ma ngeen jaamu keneen nit taxaw ne jaamu sëñ Tuubaa la nit ñëw taxaw ne jaamu Alaaji Maalik la nit ñëw ne jaamu diw sàngam laa subhanallah ci dëkk bi ñu koy dégg mu doon bokkaale bu rëy boo toogee nga wax ko taalibe saaga la yëkkatiw yat ne la yow da ngaa bañ sëñ bi da contre mag ñi da ngaa contre seen mag ñi binduñu dara moomuñu dara moomuñu asamaan ñu suuf fii lañ fekk lépp fii lañ fekk mboq seeg dugub seeg lépp fii lañ ko fekk yàlla mi ñu jaamu ko yàlla moom daf ko yeyoo ndax moom moo moo ñu bind bind asamaan bind fu nu dëkk bind su bind suñu papa bind suñu yaay di ñu tawal di ñu naaj mais koo xam ne bindu la sàpp ko la moomu la ki ki ngay jaamu da ngay jaamu ko la moom yàlla moo ñu moom ñun ay jaamam lañ mu neex ñu ay jaamam lañ mu naqar ñu ay jaamam lañ ku lànk jaamuwuloo ko dangaa lànk rek lànk sa lànk te itam ko jaamu di moo moom moo la bind moom mooy dogal ku ko jaamu boo dee mu fudd sa ndigg fu la mu dig la mu diggee da koy def moom borom bi subhaana kii mooy yàlla mais ngeen jël yàlla di ko tëkkaleeg ay seen Sëriñ Tuubaa yeeg seen alaaji Maalik yeeg seen paa yi di tëkkaleek seen paa yi ay yàlla subhaanallah lu bon rek ngeen ameel yàlla dëkk ba tàkk na yàlla la ndogalu yàlla la kii bi yàlla teg nañu napp waaw bu xéewal amee ngeen sant Sëriñ Tuubaa moo def xéewal gi moo Sëriñ Tuubaa daal moo gën a baax yàlla ci yéen daal alaaji Maalik moo gën a baax ci yéen Baay Ñas moo gën a baax yàlla ci yéen Sëriñ Tuubaa ngeen gën a respecté alaaji Maalik ngeen gën a respecté nit ku taxaw tey ñëwoon tey ni benn xasida sëñ Tuubaa rek kenn wax ko rek nga ne ko sa waaye xasida gi mu wax ni tey tey te dafa ëpp xaaral ma tëj ko ci kaso ba les murit yëpp jóg Sénégal yëpp jóg ni kii dafa contre mag ñi day xeex yoonu mag ñi mais nit ñëw taxaw wax hadiisu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngeen ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngeen gëm ban yent ban Muhammad ngeen wax déedéet bu leen ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngeen gëm de leen ne dëkk diine de bu leen ne dëkk diine ne leen dëkk bokkaale dëkk bidaa dëkk boo xam ne ay nit la ñuy toog di jaama ay nit leen jël mu gënal leen yàlla gënal leen yàlla saasam di weddi sunnata Muhammad saasam bu biir tëj ci police ñu tëj kaso ab jullit ñu tëj ko gone ak jullit ci wax xadiis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii seen dëkk bi ñaaw na salte na yéen lu leen daal sedd na seen dëkk bi yàlla moo leen alak du dëkk bu baax dëkk bu bon la parce yàlla moo tax képp koo xam ne moom yaa ngi yaa ngi yëngu daal ci alxuraan ak sunna yow li la respecté li nga li la li la yitteel mooy diine diine yàlla gi xaala laa xaala rasul dëkk bi jàppal ni yow leen gën a bañ kam Macky Sall miy sàcc seeni xaalis ak seen politiciens yi di leen def billaahi wallaahi laa la wax yéen ki ki nu gën a bañ muy nitu taw xiit loolu ngeen xam ko nga sàccal seen pétrole amul problème sàccal seen gaz amul problème loolu def mais seen wàllu kii moom pas-pas bu bon bii ñu am <laughs> mooy jël Sëriñ Tuubaa mi kaweel ko yàlla wala di ko tëkkaleeg yàlla te du yàlla nit kase la dee <laughs> ñu naan la deewut alaaji Maalik ñu naan la deewut Baay Ñas ñu naan la deewut ñi seen seen mag ñi ñoo leen gënal lépp de ngeen xam ko bu baax a baax ku toog nag di jàngale di leeral pas-pas yi bon yi nga xam ne suñu mag ñi xaw ma ñoo ko fi indi ma indiwu ko naan diw yàlla yàlla loog di yonent yonentulu ñoom kuy la dalaal loolu ba ñu xàmmee la ci ndax fen yi lay fenal rek dafa doy kon kooku kon ku la convaincu woon police tey ngay wax ne ci analyse dëkk bi ci ni demee te buur bu saay saay ngeen yor muy Macky Sall kàccoor bu bon la ak waa këram nga xam ne tey nga ñëw tey wax fi tey loo xam ne lu kii la subhanallah Macky bu la convaincu ba tëj leen di taalibe dañuy kontaan de ci suuf barke yàlla dañ lay saraxe moo tax bu benn ibaaru politique bu benn tibaar du di wax lenn ci ay analyse Sénégal seen nekku ci barke alxuraan su waxuma sax pour comme <laughs> ay booy yi wala benn affaire bi seen sëriñ si laay wax sëriñu imaam yi ustaas yi imaam yi yam leen ci seen xutba ngeen jàngale xaala laaw xaasu xam ne dëkk bii dëkk bii amul lu ëpp solo ngeen jàngal nit ñi tawhid wallahi pétrole bi dañ ko fiy bàyyi suuf si dañ ko fiy bàyyi wala aaxiratu xayrun wa abqa moo gën dafay continuer dañuy dee bàmmeel këru ëllëg moo gën fuuf nit ñi àdduna kase lañ di teg seen bët jàngal leen nit ñi pas-pas bu wér jàngal leen nit ñi diine jàngal leen nit ñi ñu amu tawxiid ndax nit boo amee tawxiid am pas-pas bu wér nga gëm yàlla gëm yenente bi sallallahu alayhi kooku doo sàcc doo fen doo luubal doo dugg ci yenn yi da ngay yor jikko yu rafet da ngay defar société amul lu gën a gaaw ci société daara amul lu gën a gaaw société jàngal nit ñi pas-pas bu wér barke alquranu karim moo tax oustaz bu fi nekk di politique wala ngay dugg ci yenn def ma ne la yaa ngi dugg ci tappale yaa ngi dugg ci yoo xam ni wàcce nga sa ànd yàlla xam na loolu fii nag xam-xam moom man moom man gëwuma kenn daal comme ay affaire <laughs> ci affaire de oustaz yooyu gëwuma ko de dëkk bi fii ñun suñ maayin lan yor dafa am loo xam ni xel la du ay question ay diineek yooyu mais dëkk bi ni muy doxee àdduna ni muy doxee loolu yàlla da koy may nit xel pusa la oustaz mun na ko for ilimaan ba mën na ko for président ba mën na ko for sëriñu murit ba mën na ko for sëriñu tijaan mën na ko for man ci damaa bokk ci gone yi nga xam ni maanaam am damay jël sama xel teg ku may wax xel wala ngay indi xel dañoo bokk ci réew mi dañuy indi suñu xel ñu di indi di diisoo di waxtaan wa rabbil kaaba oustaz bu fi dof dof lu laa leen wax ba dugg ci seen affaire yi dugg ci dëkk bi tàngara ngeen dugg fi dara bu buñ leen jàppee murit ya dañ cay kontaan ndax dañ naan kii dafay dingat Serigne Touba Tijaan ya dañ cay kontaan ne kii day dingat Alaaji Maalik ñaseen ya dañ cay kontaan ne kii dafa wahabis la dafa bañ Baay Ñas mbugalu Baay Ñas moo ko dal mbugalu Sëñ Tuubaa moo ko dal kon yéen ibaadu sëriñu ibaadu yi seen tus nekkul ci yéen ci yéen dëkk bi ku ci wax yaa ñu weere ku ci wax juum parki barki alquran jàngale leen seen diine rek qaala allah qaala rasul amul pas-pas yi moo yàqu amul lu gën a bon lu gën a bon bokkaale yàlla borom bi subhaanahu wa amul yàqute ku gën a yàqute ci Sénégal ñii di woote woo yàlla kopp yenentam ku leen waxut lii waxu leen dëgg ustaas yépp laa ci wax ustaas bi ci gis sa bopp matal sa bakkan dëgg dëgg yàlla la dëgg dëgg yàlla dëkk bi dañ ko bokk bu leen déglu mukk ay waxu nit ñi ay sëriñ si génn leen kilifa yi sëñ bi xanaa amoon kilifa kilifa ku nu kilifa woo barke alxuraan ku nu kilifa woo ay isaasu ay sëriñu ibaaru moom doo kilifa ci dëkk bi moom loolu moom nga xam ko moom ku bon ci dëkk bi da lay saaga da lay xas lan doon def yeneen yi di la sànni xeer ab sëriñu ibaaru fii du fi du fi kilifa ci Sénégal fii kilifa kilifa yi ñan la sëriñu murit ñooy kilifa sëñ Muntaxa bu nee kilifa diine rek ndax sa xel dina dem ñooñu kii ngay tuddee bu dee ab jàngalekat bi ci da nga oustaz diw wala ilimaan diw mais duñ la boole ci sëriñ saa kilifa ga kilifa yi moom bu ñu nee kilifa rek taj ba ci man mii ba ci keneen bu ñu kilifa kilifay diine rek ci Sénégal moom du kilifay ibaadu moo tax ñuy wax kilifay diine doomu soxna yi buñ ko waxee rek dangay xalaat mbàkke si ñas kii kon ñooñu kon ñi nga xam ñoom lañ def seen kilifa. ci ñooñu leen jébbalu sax waxuma la sax kii waaye ci ñooñu leen jébbalu jébbaluñ ci yàlla ngeen bàyyi leen ñañ jébbalu ñu lijjantil leen seeni mbir ñooñu ñooy kilifa yi am kàddu mais koo xam ne boo waxee ñu saaga la boo waxee ñu ne la yow di ngay jingat yow waa lay financé xaalis yow ab wahabis nga ab taalkatu bomb nga kooku wax dëgg yàlla boo duggee ci lii moom maanaam da ngay gën a tardé Sénégalais yi sax loolu dama leen koy xamal de dëgg neexut de wallaahi dëgg neexut man nag sama sama sama yat yu nag moom dama dama koo téye nii rek moom jombut kenn sëriñ bu ci wax sa iba sa ibaadu buy wax yaa ngi weere waroo politique ab ibaadu warul politique waroo leen dugg ci yooyu sëriñ ustaas yi la leen di saraxe du ay question bu doon dëkk bu jaar yoon dëkk boo am dëkk nit la dëkk boo am dëkk dëgg la dëkk boo xam ne alxuraanu si la toll mais xool leen ci tëj ci ci kàddu ci ci ci Muhammad salaa salaam kii na askan wi seetaan ko askan woowu na ngeen amal ngeen ngeen seeqal nit ki ku la joxul sa wàccuwaay joxula ci tegu la fenn kooku moom sa wax amul njariñ léegi boo waxee bu doon sa wax dafa am njariñ bu doon tey benn ustaasu ibaar wala sëriñ ibaar day génn wax wax ji am effet am njariñ ña wax ñu déglu ko ña wax ñu nawloo ko respecté ko waaw kooku mën naa wax mais koo xam ne say wax jariñu tus ci askan wi boo waxee aw saaga lan lay tegal ña la da ngay dingaat maam diw da ngay dingaat kii naan la bu ma la mënoon rey sax kat waa voilà naan naan kii bu ma ko mënoon koj man mii doomu man ñaata kii laay daj daj man ni ci ay waxi ñaaw waxi bon heure bu ma waxee dëgg Sénégal wax ak yaate ba mu dugg Touba rek dugg Tivaouane dugg Niassène ba ma wax ko live bi da ngeen gis ay saaga ndey commentaire yow doo tekki woo dara yow kii nga du nekk ñu yàq ma bëgguñu tawxiid bëgguñu dëkk bépp sëriñu taw tawxiid sama gars yi yéen tamit laay bëri yéen laay waxale e eh jii yow laay waxal ak ay netoon yi yow laay waxal di Mollah Morgun yéen laay waxal seen ay kilifa yooyu moom bu ngeen koy wax bu leen ci boole ibaadu yi ibaadu yi bu ñu ci duggoon yéen ñii doo leen xeexal comprendre ngeen pour mu leer xam nga fii tey ibaadu sëriñu ibaadu bu fi wax amul benn activiste buy toog di la xeexal booy bii da ngeen war a xeexal bépp jullit képp kuy wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mais du bu ñuy xeex Ousmane Sonko la ñuy xeexal wala keneen koo xam ne dafa jëm ci ci kii mais ay ñii la ñuy xeexal wala biir kaaba dëgg neexul dëgg alalu yàlla la xam ngeen kon damay dégg léeg-léeg activistes yi juum quoi kenn wax naan eh sëriñ yi war nañ génn wala tudd kenn mais sëriñ Ibaadu boo leen fi génne moom jàpp leen da ngeen koy salaxe barke alxuraan ay dëkkub taalibe yéen ñuy toog di laal sëriñ si rek comme classe ñoom jiijee ñoom Akhenaton rek bu ñuy wax sëriñ si fii gis ngeen ni muy demee ay ñaata saaga ndey la ñuy am ay ñaata kii la ñuy am te li ñuy wax dëgg la ci actualité dañ koy wax pas comme wax sax pour diine wala pour leen mais wax ci actualité dëkk bi ñu bokk ni mu demee ñaata saaga yéen kon nag kii toog di jàngale tawxiid nag naan yàlla nee na yonent bi salaa salaam dëkk bi bëgguñu loolu bëgguñu ko dégg kon yéen artifice yi kon bu ngeen wax tamit yéen i seppi kon bu ngeen naan kilifa kilifa ci Sénégal moom bu nee kilifa diine rek dem leen ci kilifa diine yi mi nitu tariixa yi waa kër Serigne Touba waa kër El Hadj Malick waa kër Maodo fii doomu soxna sax bu ñu koy wax sax du jóob jóob du man mii la naan doomu soxna te doomu soxna la xam nga duñ ma ne man doomu soxna doomu soxla yi bu ñu ko waxee rek mbàkke la jàpp wala si wala ñas kon seen problème Sénégal naka mbàkke si lijjanti ak si ak ñas te ñooñu la sénégalais jébbal seen bopp nag ñooñu la sénégalais yaakaar ñooy seen yaakaar tey ak ëllëg ñi ngeen yaakaar tey ak ëllëg nañ leen lijjanti seen tey tey jii tus lañ ci mënta lij lijjanti war a bil kaaba yéen ko gën a xam toog leen foofu di tàppale rek dëkk bu bon bu yées a ngi nii waaye booy bii ñu jàpp ni tëj ko ci kàddu waxu muhammad sallallahu alayhi wa ñëpp seetaan ko génn naan ma ay kilifay diine nee leen kilifay tarixa dee leen ay kilifa tarixa dee leen teqantal kilifa tarixa yi ngeen wax kilifay tarixa yi wala waa kër jiw gële waaw bu dee seen jiw tamit noonu la meloon moom seen jiw baaxul comme bokkaaleeg bidaa ak yooyu bu fekkee lii la seen jiw di woote woon moom baaxul waaye daal neel nitu tarixa wala nga tudd nit sàngam wala ak i kuréelam jeex na mais bu leen ne nitu lislaam ay kilifay lislaam kilifay lislaam moom ci suñ tarixa yi mu amu fi amu ci ci kenn ku ci toog di xeexal yàlla wala yent bi salaa salaam barke alxuraan gis nga waa kër sëñ Moustapha Sy barkaati dee bu ban génnee Moustapha yi dafa am ku mu laal wax na fii yenent yàlla Daawud Souleymane lu ko neex waa kër génn ñu ne li nga wax Souleymane sunu yenent nga wax sunu kii mais ba mu laalee seen maam ba taq ca ñoom danoo jóg di défendre seen maam nga gis waa kër gi ñëpp génn kii fii Sénégal fii la leen toll seen maam moo leen war jara xeex wala seen tante wala seen dijaay bu doon doomu soxna mais du yàlla du yenent bi salaa sallam du kenn jaralu leen ko dëkk naa fexe ngeen nekk ne te bëgguñu dëgg wal asri inna al insana la fi xusr illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawasa bil xaq wa tawasa bi sabr